tay mom doomu pikin mo ñew ci dekkam seet si waa bi ngir andandok mouvement bu mag bobu ñuy wax lepp pikin nga xamne man pap Diouf ci la bok membre la ci depuis ñu seet ma mané len duma xaar ngeen woma ndax lu ñepp bok ku nekk am ci muy guddi muy bëccëg fu ngeen ma soxla rek dina dina wisi dong wuy si donc mouvement bi nak tay ñu amal bespo bu am solo

xale yi ñooy dem si jàkka yi ajuma ñooy dem si jumaa yi donc vraiment fees fa dell euh, bés yu mel nii aussi am na solo parce que euh, jamono moom métti ba pare xat nit di nga amee jàngoro te doo ci rendre compte et que nit war nga sax waroo sax di xaar sa sa yaram yëngatu nga mën a dem seeti médecin mais à chaque fois rek war nga mën a jóg dem seeti médecin lu mel ni démb soire bi ñu doon def ak association Tringa

donc loolu je pense que ni yalla mo len di fay ma ngi len di jaajëfal di len wax ni ñom aussi ay référence lañu quoi. waaw gaay ño bax rek mais nee len duma du invité d'honneur man membre la ci ci ci ci ci mouvement bi mais loolu aussi dama koy rafetlu parce que euh ko xamul ni ngi koy def nim la def mom moko waral et que je pense que ni ñun ay jeune lañu tollu nañ ci suñu doole donc gëm nañu suñu réew gëm nañu suñu dëkk muy la banlieue et que tay kenn de wax te banlieue kon je pense que ni lepp luñu bëgg bëgg ko réaliser ndax nak fi ñun fi te ñaan nañu yalla ëlëk suñuy doom wala suñuy rak buñu ñëwé xamné kat ñun choses grand frère amna fi jëmbat lo xamné war nañu si suñuy tank. ndax bu choses. ba dañ marginaliser banlieue bi mais tay fo mëna dem wa banlieue tay am fa représentant kon la donc mouvement le Pikine dal nañu xamné mouvement bu bu am solo la et que bu kenn xaar ñu woko ku dégg rek appel bi mouvement LEP Pikine bi ndax affaire buy la affaire buy dem la dañ de japp dañ koy te